جاورت بالفرقان ربي المهين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبي ñoo في سي توبا سي si màggalug Touba tombeek ajjuma de le 23 ñu koy def fi ci Touba ci ayuk Cheikh Mouhamadoul muntaha ñu ngi li ni nuyu te di len ziar waye di ñaanal Cheikh Mouhamadoul muntaha suñu borom doole ko fay yagal wóol tam ànd ak wér ba naal yii mu fas yéene naalal maamam ji mu eggale ko ba naal yeneen i naal eggale ko dañ fi ànd koog moom. kon mbokki Damel TV ñu ngi si tey ji ci jumaay Touba ji di fi def si seen émission bi ñuy wax euh, xutbatu juma tey bu ñu ko di indi fii tey ci Damel ci jumaay sëñ Touba ji muy bisub àjjuma tombeeg la 23 di màggal dëppoog àjjuma kon loolu wax dëgg yàlla tawféexu sëriñ bi tawféexu sëriñ suñ borom la kon bu ko defee. ñu eh, wër mbokki taalibe yi séq ak ñoom laaj ak ay tontu ñu laaj ñu tont ñu laaj leen ñu tontu ñu lu jëm si màggalug Serigne Touba gi. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ni ñu ko waxee woon rek ñu ngi fii ci jumaay Touba ji ak eh, ànd ko seen seen bi wax da Mbir TV kon am nañ suñu mbéy mbokk taalibe bu ñu taxawal fii laaj ko mu moom gannaaw bu mu nuyoo lan yoo yor màggal gi ñu nekk nii ban yëg-yëg la ci am fi mu toll waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbokk yàlla bi yëpp biir réew mi ak réew di leen sant bu baax di leen siyaare di ñaan yalla magal gi liñ ci ñaan yépp suñu borom nang ko defal ñu làqal ñu ko fu yaq yegul barki borom Touba waaw man nak dama magal ci ngir jëmi Serigne Touba xamne magal gi magal suñu bambal waaw lu ko way def rek suñu bàmb nga ko defal dafa wote ñu sant la ko suñu borom waaw sant yalla nak da ko da ko da ko da ko da ko da ko tuddal bopam nañ ko ko defale no xamne maam ñu sant ci li tambalé ci ginaar ba ci gëlem bu kenn yéem gëléem bu kenn xeeb ganaar waaw màggal gi moom dëgg yàlla euh, lu ci waay def rek suñu bàmba dana la fay incha allah waaw ay jéggalu baax nag dama dama mënut a wax nag moo tax waaw màggal gii euh, dëppoog àjjuma tey euh, ci ayib sëñ Mountakha lan ngay ñaanal sëñ Mountakha ci sëñ Mountakha moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi lool wax dëgg yàlla yàggam fi suñ kanam njariñ la dëgg yàlla waaw murid gis nañu mu taxawee adduna bi yëpp gis nañu mu taxawee Sénégal dëgg yàlla am na solo lool wax dëgg yàlla yàggal si kan yàggam fi moom dañ koy ñaanal gudd fan mu yàgg fi lool wax dëgg yàlla barkab xasida yi ba xasida yi ñu jàng si màggal gi yëpp ñu def ko addee suñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér am mbokk yi ñi ngi taxaw suñ mbokki taalibe yi ni ñu ko waxee rek euh, ñu ngi ci yoor yooru màggal gi euh, di laaj ci àjjuma tey ñu taxaw suñ mbokki taalibe di ko laaj tey ci yoor yooru àjjuma gi nga taxaw fii jàkkaarlu jumaa tey lan ngay yég lan ngay yëg ci ci ci ci ci sa xol. xam nga salaamaaleykum waa Damel TV ñu ngi leen di ziar bu baax di leen baalu ax ñaan ñu teewaat ay ati ati at ci barke Sëñ Touba Mbacke. waaw waxtu yàlla wi nag dafa nekk waxtu woo xamante ne waxtu wu yéeme la ndax fi ñu toll nii kenn ku si nekk la ngay yég si sa bopp kooku yow rek yaa ko xam waaye sëñ bi moom liggéeyal na adduna bi loo xamante ne nii kenn amul payam. dañuy ñaan yàlla kenn ku si nekk li nga yëg ci sa bopp rek nga ñaan ndax fu mu toll nii heure bii la màggal bi di tàmbale heure bii nag lu ci waay ñaan dañ koy ñaan ñu bokk kook suñuy mbokki jullit suñu mbokki taalibe ak suñuy mbokki dëkkandoo suñu waa kër yëpp waaw di leen gërëm leen yéen it si seen taxawaay ci màggal bi waaw parce que lii nii dafa rafet waa ñëw màggal tuuba gis lu mel nii télévision nationale yu Damel TV tamit ñëw di taxawaay am taxawaay bii nii tamit dafa rafet ak bépp bépp booloom télévision bu fi nekk tamit dañ leen di ñaanal yàlla rek yàlla may leen kattan ak taxawaay bu wér ci barke Serigne Touba ci barke Seydina Mohamed waaw seen taxawaay rafet na liggéey bi dañuy ñaan ci yàlla ñu fekk ko ay at te tal ko waaw màggal Touba nag moom li ku ne la ca biir sa xol loolu rek nga yëg waaw te dañuy ñaan yàlla mu sax si ñun ci barke borom Touba. waaw yow loo am loo ci su waxee rek man amatuma lu jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw kon bu ko defee rek mbokk yi ñi ko waxee woon rek euh, ñu ngi ci yoor yooru màggal gi lii nag li am solo lool ndax waxtu wii nga taxaw ko fii jumaa ji nekk nii nga nekk ci mu jumaa ji di waxtaanee yoor yooru màggal gi am na solo lool lool lool bu dëppoog àjjuma ñuy waajal jumaa war a dugg ci biir jumaa ji war a julleenoog ñoom jumaa dafa xubbatu jumaa kon bu ko defee rek wax dëgg yàlla ñi ngi taxaw suñu mbokk taalibe bi di ko laaj moom tey lan lay yëg lan la yek ci yor yoru magalgi. ji màggal gi lan nga yek ci yor yoru magal gi wa assalamu alaykum d'abord di len nuyu di len sant di geureum euh di len wax ni contane nañ trop ndax bis bi tay kenn ku ne ñaan na yalla fekke ko ndax borom bis bi ndax bamuy dem ci way ci ci yonam bo mu demon tay ba tay yalla fayee ko kon sante yalla bu baakha baakha baakha baax di ñaanal senegal jamm di ñaanal aduna bi jamm di wax kep ko xamanteni ñoo ngi fi tawat tawat yalla nako yalla safara waaw ah, képp koo xam ne tam ñëw nga fi ci journée bi tey loo fi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu ci barke borom bis bi kontaan nañ trop ñu ngi jaajëfal télévision bi tam ah yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko ndax loolu rek moo ci am solo jaajëf jërëjëf kontaan nañu merci. waaw mbokk yi ñu ngi fii ci day ci jumaay Touba ji nañu xam ne waxtu wi tembe moom mooy màggal gi daanaka mooy màggal gi ndax mooy yor-yoru màggal gi naaj taa tàng jër kon bu ko defee ñu ngi taxaw ak suñu mbokkum taalib yi ko laaj tey jii lan ngay yëg ci yor-yoru Euh, màggal gi waxtu wi tembe ñu taxaw ci xonu mu jumaa ji nii di a juma ji lan la sa xol di yëg sa diggante ak Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ibra. ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi nu ngi sant Serigne Touba Xaadim Rasuul yàlla na ko yàlla fayal di leen sant di leen gërëm ndax yéen kenn mënu leen a fay. ndax yéen message yi ngeen di jàllale ngir message yi Serigne Touba Xaadim sol yéen kenn mënu leen fay nga leen di bàyyi ak Serigne Bamba Xaadim Rasuul waaye tey yëg-yëg bi am mooy sant Serigne Touba dolli koo sant ndax maanaam yoor yoor gi fekkee nu ñu fekke ko mu fekk nu fii ci kanam jumaa ji dolli yoonoo sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla yoon wii nga xam ne mooy yoonu Serigne Touba wii yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla nañu yàlla def digg digg digg murit saadix di barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul di ñaan yàlla télé bii yàlla na ko yàlla saxal ndax ñun nag amuñu lu Serigne Touba Serigne Touba Xaadimu Rasuul te it sëñ Tuubaa ku ko jàppal rek ñun yor la ñu jàpp moo taxaw ma taxaw seen la ak macha allah sa taxawaay rafet yal na yàlla guddal fan wi ci barke ba doon Tuubaa Xaadimu Rasuul Murid Saadix amiin Murid Saadix waaw murid yi ñoo mel noonu rek dañoo xiir Serigne Touba ba tax na loo wax ci ñoom mu jëm si Serigne Touba ñu may ko noonu kon bu ko defee ñun ñii tey jii ñoo ngi fii ci jumaay Touba jumaay Touba jaa ngi nii kër mag moom gaa ngi nii waaye kër Cheikh Abdoul Ahad a ngi nii kër Cheikh Mamadou Fadal la nga nële kër Cheikh Abdoul Khadir la nga nële kër Cheikh maanaam kër Sëy Saalihu nële kon maanaam fii ñu taxaw tey ji mooy dëgg dëgg Touba fii taxaw tey ji mooy dëgg dëgg màggal gi fii dëgg dëgg ki ko defee ci yoor yooru màggal gi ci yoor yooru Touba wa kon tey jii bis la boo xam te nii am nañ mbégte lool suñu xor waaye delloo ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom yàggal ko fii lool waaye lépp yàlla na ànd ak wér incha allahu rabbi màggal gii nañ xam ne lépp lu ci waaye ñaan dana nangu ndax xol yi lépp tàppe na nekk na benn réew mi ànd nañ nekk nañ réew mi am nañ njiit yu bees réew mi am nañ koom-koom bu bees na ñëpp delluwaat ci tool yi ñu liggéey bay dundee waaye ba nag ñi nga xam ñoo jiite ndoxum Touba bi na ngay waxal ñi nga xam ñoo jiite ndoxum Touba bi nañu dimbale santaan yi son nañ lool ci wàllu ndox mi nañu dimbale bu màggal gi ñëwatee ñu dimbale ñu ci wàllu santaan yi sonn nañ lool lool lool ci ndox bi ñi nga xam ñoo jiite ndoxum Touba bi lool moom man maa leen koy ñaan personnellement kon bu ko defee ñu nekk ci yoor yoor jumaa ji waxtaan wi kon ñu jël mbokk taalibe yi bu ko kenn ku nekk sànni say kàddu ndax lu ñëpp bokk ñëw dañ koy dañ benn nen bu ko ñëpp bokkee dee su ko am lépp dañ koy may nees kenn ku ne capp ca kon bu ko defee incha allahu rabbi nañ ko àndandoo ñëpp ñëpp a àndandoo bi kon bu ko defee ñi ngi ànd suñu benn waay suñ salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi a a baax di la leneen ci yoor yoor màggal gi fii ñu toll tembi nii mooy màggal gi ñu ànd ak dam seen bu ñuy wax damil TV di la laaj tey jii ban yëg-yëg nga am si waxtu wi ñu toll tembi nii waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waa damil TV euh, maanaam bésëb tey bi moom tolu nañu fo xamanteni dal kenn mënu ko wax. foko nat rek wessu nako parce que manam euh, Serigne Touba daf ñoo liggéey lo xamanteni ni manam tay tey neex na daal tey añ baangi ni wa añ baa ngi muy lo xamanteni ñu koy ñaanal manam ñu ngi ñaan yalla suñu borom taaf ñu ci barkem bu baaxa baaxa baaxa baax wa tay yeen nit li ngeen mën ren yalla ngeen mën deewen lu ko ëpp. di len sant di len di len di len sargal bu baaxa baax wa Damel TV. wa gërëm leen bu baax jërëjëf. kon bu ko defee ñu ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha rakkam yi nga xamante ni ñoo ko nekk ci gannaawam di ko jàpp jàpp ci liggéey bi ak taalibe yi nga xamante ni ñoo nekk ci gannaawam di ko jàppale liggéey bi ñu ci ziyaare baax a baax suñu sëriñ suñ see suñ sëriñ suñ Cheikh Mbacke di ziyaare bu baax suñu sëriñ sëriñ Sidi mu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke di ziyaare ñëpp njaboot gi xam ne ñëpp ñi ngi nekk ci gannaaw sëñ Bass ziyaare ñëpp ñi nga xam ne nekk na ci gannaaw Cheikh moom xam mun taxaa di ko jàppale ci liggéeyam bii yow ñëpp si mën a may kattan may leen xel moo xamante ne danañ ci ànd ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci liggéeyam bi kon bu ko defee rek ba léegi ànd ñu ci liggéey bi fas yéene continuer yéen ci bi nga xamante ni moom la ñuy def nii ci xarumu jumaa ji di ko liggéey